asalaamaaleykum mbokki amateuru làmb yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey ñu leen di nuyoo fii ci croisement Cambérène ci carrière bi li ñu fi dajale nag mbokk yi li ñu tax a jóg tey li tax ñu dugg ci gox-goxaan yi gisanteeg amateuru lamb yi lenn rek la mooy combat bi nga xam ne ni Pa Abdou Fall taxawal na ko diggante Siteu ak Papa Sow ñu koy remercier di ko jaajëfal bu baax ndax gis nañu ko moom Pa Abdou Fall saa yu lamb ji nekkee ci ay tolof-tolof saa yu commencé xiif lamb mu ñëw indi choc boo xam ne nii choc bu kenn kenn kenn kenn mënut a pronostiquer la donc dellu si nan dañuy ñëw dugg ci biir mbaar mi fekk si gars yi amateurs yi laaj leen diggante Papa Sow ak Siteu naka lañ ko gisee ak kan lañ jàpp ne moom mooy favori kan lañ jàpp ne moom moo mën moroomam kon Malcom topp ma ñu dugg ci biir voilà Malcolm ponkal maa ngi nii waajaa ngi nii Ousseynou Laay bu góor a soog moo ne nii amateur bu mag bi Ousseynou ziar naa la. waaw maa ngi lay ziaraat baax di la fay. mbaa yaa ngi am jàmm. sant yàlla bu wér a wér. yëg nga li xew ci làmb tey. waaw loolu la noonu. diggante Papa Sow ak Siteu. waaw loolu moom yëg nañ ko démb. noo ko jàngatee. waaw di ci sant yàlla bu baax rek parce que boo xoolee làmb ji ba ba léegi ñu ngi doon xaar combat yu mag yi taxaw yàlla dogal Pape Abdou Fall décroché na combat la ñu ko si ñaanal moom bi tamit di si ñaanal tamit Papa Sow parce que ku ne xam na suñu diggante ak Papa Sow waaw teraanga yu bëri dox na suñu diggante ak Papa Sow moo tax dañ ko si ñaanal moom yàlla may ko ñu ndam lu seddu guy. est kon yow di nga pronostiquer lu jaadu est doo far. ah man kay wax dëgg yàlla 100 pour <laughs> ah, dina yombee noonu nag. non Papa Sow ba liggéey li mu war a liggéey teg làmb ci yoon moo mën Siteu fuuf. bu ko tegut ci yoon. non da teg ci yoon sax Papa Sow xam naa ko parce Euh, borom jom la te borom fulla borom fayda la te xam na ni Parcelles dañ koy xaar Fass di ko xaar kon xam na li koy xaar fi ne nii. du risque ci yéen ngeen jël Siteu. non non du risque parce que lamb moo toll foofu noonu parce boo xoolee lamb ji léegi mbër yi bëri duñ seen biir te combat yi tamit dëgër na xam nga te Papa Sow jógee comme dafa war a régler pour mieux sauter kon c'est normal mu jël Siteu nekk beneen xale boo xam dafa ne ci yoon ni am coow mu daan ah man de man wax dëgg yàlla loolaa bëgg te loolaay ñaan loolaa gis man mun liggéey ñëw jàpp Siteu daan ko avec la manière dem kon carrière am loolu a koy ñaanal. Papa Sow lan la ëppalee Siteu. non Papa bu dee bëre Papa Sow moo dàq bëre bu dee xeex Papa Sow ëpp xeex te bu dee fulla fit Papa Sow moo ko ëpp Siteu kon Siteu moom sens am bëriwul ci combat bi amaana benn sens la jam muy affaire de jeunesse Siteu gën a nekk xale mais Papa Sow expérience ak adversaire yi mu bëree kon bu tegal làmb ci yoon. combat bi combat kon ci gàttal amul leen lenn lu ngeen di tiit ci Siteu. non wax dëgg yàlla moom amul dara lu ñu xalaat Siteu moom lu dul arbitre sifflé yàlla yóbbu ñaari mbër yëpp si jàmm ñu ñëw préparé ñëw yi ñëw jàppale promoteur bi arbitre sifflé poisson daan ko ñu dem ñibbi. jaajëf Ousseynou. jaajëf kontaan naa ci yow. voilà mbokk yi ñu ngi ak euh, Moussa Moussa ancien gloire nga yow wala amateur nga. waaw non Moussa mën naa ne ancien gloire la quoi. Ah. waaw parce que euh, jaar na ci pom yi. kon kon la waa am na lu ma ci xam tuuti tamit. diggante Papa Sow Siteu. Papa Sow Siteu combat la. koo ci faral. non sincèrement pas ñoom ñaar amu ci mbër quoi. Ah. waaw aw ma ci mbër. kan nga jàpp ne tey moo ëpp ay sens ci combat boobu. Euh, Siteu ci combat bi. Ah. waaw mais tamit euh, nees ko waxee bëre bukkeek mbaam la. xam naa ne euh, xam naa ne bëre bu bëre bukkeek mbaam la quoi ndax xam naa ne lu mu yàgg yàgg moom. Ah. gém naa ne Siteu de koy daan. waaw déet kon Siteu lan la ëppalee Papa Sow lu mu ko war a mën a daane waaw lu ma ko ko mën a daane nekk nii bëri na booy Papa Sow Siteu fi mu nekk nii boo xoolee euh, ci wàllu doole jàpp naa ne Siteu moo ëpp doole bëre ëppale wu ko Papa Sow mais def ko ëpp capacité quoi waaw voilà parce que Siteu boo xoolee maanaam mbooloom rek ñaare boo amul kii tuuti def lay bëgg a yàqal lu bari ci làmb waaw non walu xeex papa moo dax xeex mais xeex ba du feeñ waaw parce que booy bi pied droite la waaw te loxo ba defa gudd relance bi bu talalee loxoom instant boobu noonu pour papa xus ko mën naa door benn mais du ni ñaar parce que bu dooree balaa muy def ñaar boobi na ko jàpp te jàpp naa ne bu ko lamb jàppee rek lamb ja foofu lay yëm. yow bu papa Sow waroon a génn ci combat bi loo koy digal. papa bu waroon a génn ci combat bi li ma koy digal mooy bu arbitre soufflé na ses Siteu na ko ses to ses gi yot bu mu ko ses ne tey dama koy jaar fii farfos na ko ses xub ko si te yëkkati loxo mu door a mën a jaar ci Franc bi bu boobaa mën naa am jël bu gaaw la koy daan. voilà keneen a ngi nii tur bi naka la grand. Cheikh Mbaye. maam Cheikh naka nga gisee combat Papa Sow Siteu. combat Papa Sow Siteu ginnaaw bi ñu julee eh, si yàlla ginnaaw bi sant yàlla ji si yonente bi di gërëm ñëpp di gërëm waa axlu làmb di gërëm ñëpp ñu ngi wax ni Papa Sow moom lañ faral ndax olof dani kuy wàllu yaan sa dëkk tëggul ñun Parcelles lañ dëkk man sax bu ñu waxee wàllu làmb taxul ma xam ci dara ndax euh, wàllu comédie bi laa gën a gi artiste comédien laa waaw mais nag li ma xam ci làmb bëriwul li ma ci wax tam du li ma la xamal mooy wax ju bëri daanul Papa Sow Papa ay wax daanu ko te kii ko doon làmmi nag boo noppee rafle Siteu di nga noppi man li ma bëgg moom xaw ma lu yàlla def nag mais li ma bëgg mooy ñu am ndam si kaw Siteu man Papa laa faral man ragal péete day day xañ a wërsëg lii la am lu may wax. voilà ñu ngi beneen amateuru làmb kii fay biram lañ koy wax fay bëgg ceeb bëgg cere fay na nga def. maa ci sant yàlla rek. yàlla na sant yàgg. amiin amiin amiin. combat Papa Sow Siteu taxaw na loo ciy wax. combat Papa Sow Siteu li ciy wax moom leen la rek Siteu moom na aj gàddoom taxaw parce que Papa Sow ndaama la aussi Baye Fall bi moom. li ñu koy xelal mooy leen rek na tey jël combat bi en charge xam ne maanaam ki muy bëreel mu jox ko cër normal waaw aussi itam li ñu koy ñaanal yàlla may ko ci ndam. kon si Siteu nga faral. waaw Siteu mooy sama mbër waaw. ñoom ñaar kan nga jàpp ne tey moo ëpp doole moo dàq xeex moo dàq bëri. non si ñaari ndaanaal ndaanaan lañu. ñaari ndaanaan lañu léegi Papa Sow mbër bu mag la. mais si te itam aussi na def tout le attention parce que Papa Sow ndaama lu féete suuf la. mais su bëggee bëreek moom itam chaque jour na sóoraale gan gi su ñëwee du ko may dara parce que Siteu itam aussi borom sañ-sañ la du may dara mais wax dëgg fi yàlla bu sañoon sa Siteu mooy daan. Siteu lu mu ëppalee Papa Sow tey. mbooloo. mbooloo kese. ah ëppale na ko mbooloo aussi ci wàllu ñaan ak yooyu xaj na nag mënuñu cee wax mais ëpp na la ko mbooloo moom. ci ci ci wàllu doole ku ëpp doole nga foofu. doole doole doole moom boo dee xool. Siteu moom Siteu moom Porokhane moom euh, Papa Sow mën na ko mën naa mën naa sàcc doole mais aussi itam Siteu ndaw la quoi ku dàq a bëree ñaari ndaanaan la loolu laa ci mën a wax mais su ma sañoon moom Siteu mooy daan. jaajëf jëwriñ ok ñoo far yow. laay jooba ngoog giri lañ ko doon wax wala. waaw mais mais giri diggante Papa Sow Siteu. diggante Papa Sow Siteu. yàlla xarit Papa moo déet waay bul moo dàq bëre. Ah. moo dàq xeex. te tuus Papa rek. Papa bu taxee ba tuus. ba sotti ko soobi. ba neex mën ngaa dem ñibbi. wallaahi sim. kon yow daal yaam lamb ji yàgg yàgg Siteu day tëdd. waaw yow Siteu amul bëre bu bu mën a daanal Papa. a ah, pourtant sa waay mi fi jógee léegi ne Siteu moo ëpp doole. ma ne Siteu ëpp doole dàqul bëre. Siteu benn xar rek la am wala boobu te mënu ci def waa ji waaw waaw. ay ni mu ngi rey ay tubaab. maa daal mën na ah tubaab ak nu mu mën a def ba génn ci combat bi. ah Siteu xanaa daw daw wër wër wër rek ba na ko ko waaw. Pape ziar la. waaw ñu ngi lay delloo ziar Fall. mel ni supporter number one la. waaw waaw gis nga waaw noonu la demee nag. koy supporter ci Papa Sow ak euh, Siteu. waa ñun ñu ngi ci baay. Ah. ay targi ndaa leen doomu jàmm gën lan <laughs> waaw Siteu rek. mais am geen combat. waa si am nañ combat. combat bu metti sax bu naqaree li jëm. lu leer nga wax mais incha allah combat bii passé waa dinañ lu bëree bëri ba oh. oui. mais Papa Sow du ñeexu ñebe kenn de. waa xam na du ñeexu ñebe mais ñun dañoo def ay preuve ba war a bëri moom rek xam na làmb ji saa bi ñun moom Siteu ku tudd pour VIP bu tudd ko ndax dafa def ay preuve saa bi ku lekk avance Siteu ku ne xam nga ne am nga làmb am nga combat. waaw moo tax tamit ñun daan ko paral bu baax a baax incha allah. combat boobu loo jàpp ne moom la Siteu ëppalee Papa Sow. combat boobu noonu waaw am naa am naa yaakaar moo ko ëpp ginnaaw moom. waaw moo ko ëpp ginnaaw. waaw mën na ko bañ a doole ndax mais jàpp naa ne tamit Siteu moo gën a nekk xale quoi waaw am naa bu Siteu liggéey li mu war a liggéey waaw mën na ko ëpp doole. ku dàq bëre ci ñoom ñaar. no Papa Sow mën na bëre si mais Siteu moo si rolos quoi am na foo ne bu fa eggee. am naa yaakaar Siteu mën na jàpp te saa du jàpp ndax moo su roloos. daal fi mu toll nii amagoo kenn ko ku la ne tey moom moo war a mën a gagné combat waa si am naa yaakaar moom Siteu day day gagné. far rek. <laughs> waa si ba tey na nekk mais am nañ yaakaar daal waaye bu ko Siteu jàppee moom laa mujj jeex. waa Pape. daan kontaan nañ biir jaajëfate. voilà ñu ngi ak euh, grand Abdou Abdou Gueye nuyu nañ la Abdou Beye Abdou Beye nañ la. ñoo ngi lay ñoo ngi lay fay. grand ancien gloire nga wala da ngay topp lamb rek wala nu mu demee noonu. waaw daan naa si yëngu nag mais jotuma see def lu lu mën a wax daal ah. waaw. ok kon kooku ancien gloire la diggante Papa Sow ak Siteu noo ko gisee. Papa Sow Siteu waaw komba la combat bu neex mais avantage bi pour man Siteu moo moo ëpp sens que si combat boobu quoi moo gën a nekk xale. fagu de jeunesse bi nag moom mën na koo mën na ko yóbbu mën na koo ñàkkloo ci komba boobu mais képp kuy wax làmb moom. da jàpp ni Siteu combat bu ko tegee ci yoon combaam la. mais bu ko tegee ci yoon Papa Sow aussi teg ko ci yoon est-ce que du am ay complications ci Siteu. waaw bu ko tegee ci yoon Papa Sow teg ko ci yoon yàgg yàgg métit bi ci Papa Sow lay mujj ndax Siteu moo gën a nekk xale pour l'instant moo ëpp doole mën na tolloo doole ñoom ñaar mais Siteu mooy gën doole. kan moo dàq bëri ci ñoom ñaar. non Papa Sow moom moo dàq bëri Papa Sow moo xam nga ne bu wax làmb rek mm-hmm. ci Papa Sow la tourné âge bi ah, sport xale moo koy def Papa nag man jàpp naa ne fi ne nii bu doon bu tegan seen âge ñoom ñaar man jàpp naa ne man na Papa mën na Siteu Siteu doomam la waaw mën na ko jur. loolu daal moo tax nga jàpp ne Siteu war a moom combat. waaw man loolu laa jàpp ñoom ñaar dàq xeex. Papa moo dàq xeex moo daax bari ah kon est-ce que Siteu am na sens ci làmb ji. am na sens ci làmb ndax moo gën a féete xale. moo ëpp doole. jeunesse bi mooy mooy mooy def différence. mooy def différence bi si kaw mu teg ko si yoon. waaw comme combat yi passé di mu ko bëree su ko bëree Papa Sow Papa Sow mbër la moo xam ne kenn du ko saax saaxee waaw. da nga koy teg si yoon jàpp ko daan mais boo ko saax saaxee moom am loolu naqari. waaw jaajëf ñu ngi leen sant di leen gërëm. voilà mbokk yi ñu ngi ak Diouf production bu Réfane ñu gën koo xam ci Mamadou Diouf nekk katu làmb xam làmb yàgg ci nekk amateur aussi teg ci Baye Diouf siyaar nañ la. waa noo ngi delloo siyaar baax a baax a baax. ci loo nekk mbaa jàmm ngi ci yow. maa ngi sant bu baax a baax a baax. yàlla na sant yàgg Papa Sow si te taxaw na noo ko gisee. ah combat la de combat de. Hmm. ñoom ñaar ñëpp ku ne am nga combat. waaw ah. mais tey tey tey moom bu ma doon wax euh, Siteu. mooy dafa doon combat boo xamante ni combat bu mu war a respecté la daal ndax dafa jóge ci défaite mhm. te yaakaar naa ne combat bi doon du doon combat war na doon combat bu muy ñàkk daal mhm. waaw même Papa Sow aussi yot dafa jóge ci defet ñoom ñaar ñëpp daal ku nekk sa combat la moom mhm. waaw ndax instant bi moom ku nekk dañ la sas daal te ñuy nekk sa ginnaaw aussi léegi Papa ak Siteu lan la ci mbër ëppalee moroomam lan la ci mbër ëpp ëppalee moroomam bu dee expérience bu bëre moom Papa Sow moo ko ëppalee Siteu waaw ma ma mag ci bëre daal mais bu fekkee ne doole xele sita moo koople waaw. ku dàq bëre ci ñoom ñaar. dàq bëre moom ku ne ci wane na qualité bëre ndax ku wanewul woon qualité bëre doo yegg si fii nga yegg si waaw ku ci wanewul woon dara doo yegg si fii nga yegg si. gars yi nee nañ Papa Sow a dàq xeex Siteu. non dàq xeex bi moom parce que gis nañu dàq xeex bi xeexu jaxasoo la Papa Sow di xeex Siteu xeex bi xeexam dafa teey kon les essais yi mënoo analyser ne Papa moo dàq xeex noo analyser ne sita moo dàq xeex. waaw waaw. mais combat boobu kan moo ci ëpp ay sens tey kan nga jàpp ne moom moo war a remporter combat boobu. bi moom nu ma mën a kii si ta moo ëpp mille sens fi mu nekk nii ci combat bi ndax parce que moo gën a nekk xele te instant bii nii moo moo gën doole. waaw tax ndax nee nañu xele bëre xele. waaw te instant bi ci si moo gën a nekk xele moo gën a kii daal moo gën a nekk doo moo gën a yor doole xele daal. kon daal bu Siteu daanee bettu la. non bu daanee moom bettu ma moom wax dëgg bu daanee bettu ma. bu Papa daanee bett na la. non papa aussi xam nga rek ki la lam la quoi mais aussi xam nga nit ki li nga op doole nit ki dax koo bëri ñëw ñu daal la. loolu day am ci lam. loolu la mais dina am nañu droit nag ñu analyser lam ji nan lay demee. naka lamb ja reefaan. lam ju reefan neex na trop danoo war a gëstu nag waa reefan ndax moom boo yaa ngi toj reefan ñun promoteurs yu ndaw yi moom ñu ngi toj reefan waa waaw. kañ ngeen ñuy invité ñu ñëw ànd foofu ca lamb ja. waaw après nan la invité. bu ñuy tegaat nan la invité incha allah ren ñu ngi bëggoon a ñëw Dakar sax mais dafa am loon ay affaires yu ndaw a ndaw yu ñu tee rek mais yàlla baax na quoi saa bu jotee rek day yomb. lutte avec frappe wala lutte sans frappe ngeen fay teg. lutte avec frappe la ñu fay teg. waaw dañoo am ay licence licence Diourbel loolu fay teg waaw. jaajëf kon danañ ñëw reefaan incha allah. waaw jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal baax mais nag aussi euh, sama mbëriñ ngeen gëstu leen Boursine. sama rak la ngeen gëstu ko wuli moom mu ngi ci kaw. Kewel am na komba am na sama benn rakit aussi buy bëre le 3 safal cere kooku moom sama rak la waaw sama rak la moom ñaan ñaanal ko ñun ñëpp yàlla na ko may ndam ci barke yonent bi Bour Sine yàlla na ko saa borom may combat kewel combat am bi mu jëm yàlla na ko may ndam Maam Góor Diouf aussi champion la xam nga ñu ñaanal ko bu baax a baax ñaanal leen ñoom ñëpp daal incha allah waaw jërëjëf. voilà mbokk yi ñoo ko gisandoo gis ngeen ñu ngi woon tey fii ci Cambérène croisement Cambérène ci carrière bi ñu fekk fi nak ay amateuru làmb yu wute yu bari lool xam làmb yàgg ci ñi ay ancien Euh, ñu wax ci diggante Papa Sow ak Siteu dégg ngeen ni ñu ci waxee ñii pour ñoom Papa Sow moo ëpp doole moo dàq bëre moo dàq xeex euh, mais Siteu moom moo ko gën a féete ndaw te loolu rek war na mën a def différence ci làmb ji ñii aussi jàpp nañ ne Siteu sens yooyu yëpp mu ngi ci moom mën na bëre mën na xeex te aussi am na doole te jouru combat ba war na mën a ëpp Papa Sow doole donc làmb la joo xam ne nii jusqu'à présent amul benn pronostiqueur koo xamante ne nii tey mën ngaa pronostiquer ci làmb ji ne diw moo war a mën diw mooy daan loolu amul kenn ku ko ñemeegum donc dañuy ànd ak yéen xaar ba jour yi ñu xool diggante Papa Sow ak Siteu kan moom moo ci yóbbu ndam li bu boobaa ñu xam kan moo mën ci ñoom ñaar jërë ngeen jëf mbokk yi kon xaar leen ñu beneen yoon ci seen seen bii di wasaare làmb jaa ngeen jëf